gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu continuer rek ci liggéey bi nga xamee ne liggéey bu am solo bi nga xamee ne suñ Balla Mbuub ma ngi koy liggéey ñu dox ba egsi fii nga xamee ne bokk na ci fii sëñ bi jaaroon e, julli fee timis keroog e, guddi e, samedi ji nga xamee ne waxtu timis jot na mu jullee fi bi mu fi jullee la la ñuy wax rek ci ni ko suñ Moussa waxee dafay wax ne ba nga xamee ne jaar na kànka fekk fa ñaari mag ku ñuy wax Mor Mamoun Sarr ak ku ñuy wax ma ma Masamba ma Makumba li ñoom ñaar biñ ko siyaaree ba noppi saafa ante ñoom la wéy jëm si bayti bi mu ñëwee bayti bi mu ñëwee ci tool yi am xam naa ay ñuy xeex muy àtte leen ba mu noppee waxtu julli wa jot mu jullee fi timis ba mu jullee ba noppi euh, maam maam maam Seexanta yebal fii benn taalibeem bu ñu wax Ñoogu Njaay bi mu ñëwee ne ko Jurbel ngay fanaane moo wëlbati ko doole jëm nag ngaabu kon loolu mooy istuwaaru fii Eh, ñu eh, simi ko rek ci ni ko suñ musaa waxee nee na ba Moussa fa anteeg ñoom la way jëm bayti fa tooli bayti ya la wàccee àtte fa la julle timis guddik jibéer ja ndawal boroom gaawaan ne seef ak ja muy njóogu njaay ne ko boroom gaawaan nee na nga dem jurbel ca ngay fanaane loolu mooy barab bii nga xamee ne eh, sëñ bi jaar na fi jullee fi timis ñu di ko defar mu mel nii mu mel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu